fànn lañ koy defee taarif luxatan ak shar'an eh, maanaam ci langue langue arab lan la koor di tekki waaye ci sharia nag li muy tekki du na wuuteeg li muy tekki ci langue bi waaye boo koy seetlu da nga yëg ne benn la buñ la ko firilee ndax dañuy wax ne a mu luxatan al imsaaku wala ñu ne ak tarku moo tax dañuy wax ni fa man amsaka an shay'in qiila lahu saa'imun maanaam dañuy wax ni nit koo xam ne dafa téye boppam ci benn mbir dañuy wax ne kooku dafa dafa dafa woor te li tax ñu wax ko mooy ba nga xamee ne yàlla def na la muy def ci moom buñ ko laajee doom ji la mu wax mu ne indi nazartu li rahman sawma wala an ukallima al yawma insiya te mooy dañ ko laaj mu ne man tey du ma wax ndax dama woor woor gi mooy ñàkk gi mu doon ñàkk a wax moo tax mu ne dama woor kon li muy tekk ci ci langue arab mooy téye sa bopp téye sa bopp ci wax bu fekkee ne da nga jëlu ci sharia li muy tekki dañuy wax ne huwa al imsaaku anil muftirat maanaam ci mooy nga téye sa bopp ci lépp loo xam ne moo mën a dog lu mel ni lekk lu mel ni naan lu mel ni sëy ak yu aju yu mel noonu looloo tax ñoo tox ne tuddee ne moom lañu al imsak an jamiil muftiraat lu mel ni mu ngi commencé nag lu min tuluuil fajri ila gurubi shamsi maanaam yaa ngi koy def ci bu fajar xare bo bi jant bi di so waaye nag dafa am lu muy ab àndal bi niyati saw mi nga am intention pour woor kon lii daal bu ñu ko doon taarifal ci gàttal woor daal ci langue arab mooy téye sa bopp bu dee ne nag ci langue ci ci ci sharia mooy téye sa bopp ci lépp lu mën a yàq koor lu mel ni lekk lu mel ni naan lu mel ni sëy loolu daal moom la mën a tuddee ci ñaari taarif yooyu. mais bu ñu bëggee xam makkaanatu place am ci l'islam ah xool nga buñ doon wax place bi mu doon am ci lislaam dañuy wax ne farata la c'est-à-dire obligation la hmm. kon mën nañu wax ni xukm bi ñu ko mën a jox hmm. mooy fardun hmm. farata la ci koo xam ni fekke nga woor weer wi amuloo feebar amuloo benn ngant kooku farata la ci yow aaya bi nga xam ne mooy wane ne farata la alquran mu wax ni yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alaykum kama kutiba ala allazina min qablikum laalakum tattaqun kon loolu mooy tekki ne kon farata la ndax li mu sayduna muhammad yàlla moo ko wàcce ci moom alquran aaya boobu beneen bi ci des mooy yonent bi it bi mu ñëwee dafa wax ni bu ni bu neel islaam ala xamsin maanaam lislaam bu fekkoon ne néeg la bu ñu tabax eh, juróomi kennu moo ko yenu juróom yooyu bi mu ci wax mooy seede ne yàlla mooy yàlla mhm. muhammad yàlla ko yónni mhm. boobu mooy bu njëkk bi mhm. mooy ñaareelu mooy ponk bu njëkk bi beneen ponk bi mooy iqaami sala taxawal julli ba ñaareel bi ñetteel bi sawmi ramadan te mooy nga woor weeru koor bi comme li ñuy ci ci li ñu nekk nii beneen bi ci des mooy waa ita isaka te mooy nga joxe asaka génne asaka beneen bi ci des mooy dem màkka ci boo ko manee eh, Mansour boo doon seet ci li ñu wax ci yonent bi sallallahu alayhi li mu wax ci ci ci ci juróom yi nga xam ne mooy mooy tiye lislaam juróom yooyu ñaar ñi njëkk yi mooy ñaari baatu sedd yi te mooy nga sedd ne yàlla mooy yàlla amul ni ñu koy waxee ci ci ci kii ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah te mooy sedd na amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu gaay jëriñ ñàkk jaamu gaay lor ku dul yàlla bi ñaareel bi mooy nga sedd ne Muhammad maanaam diine jii maanaam li ngay def ci ki nga xam ne moom la jaar ba yegg si ceeb mooy Seyduna Muhammad gannaaw ñaar yooyu nag moo ci topp te julli nag mu bokk na ci gën a rëy ci jaamu yàlla yi biñ fi jógee nag li ñu tuddee woor ñëw bi ci topp mooy génne asaka bi ci mujj nag mooy aji makka te boo seetlu ni ñu ko taftalante Mansour bu nekk dafa am priorité xam nga bala ngay ne bala ngay julli dafay fekk nga gëm yàlla gëm Seyduna Muhammad boo gëmee yàlla gëm Seyduna Muhammad julli ñëw julli nag moom amul ngant bu dee góor amul <laughs> wax nga dëgg de amul amul retraite beneen bi ci des mooy feeg yaa ngi des ak sa xel Mansour julli du wàcc nit jigéen am na moment boo xam ne mën na bañ a woor mën na bañ a julli bu fekkee ne dafa gis mbaax booba muy jeex xanaa loolu dinañ ci ñëw ak benn benn jotaay beneen bi des mooy euh, weeru koor am moom itamit condition la na fekk nit ki wér na fekk mu ba am am bu dee jigéen mu bañ a am benn xayd wala nifaas loolu mooy tax mu woor beneen bi nga xam ne nag moo ci mujj mooy euh, dem Màkka kooku nag dañuy wax ne condition la euh, maanaam génne asaka kooku dafa am condition yu tax ndax it bala ngaa mën a génn asaka dafay fekk nga am alal beneen bi ci des mooy dem màkka kooku it man istataa la wax ilayhi sabilan ku ko mën benn yoon rek mooy farata yi ci des yëpp nag am na yoo xam ne tourisme la rek Mansour kon imam foofu tamit euh, xam ci mm-hmm. wàllu leeral bi ñooy faral di gis ni am na ñoo xam ne daal daanaka dañuy wax ni ñoom ay jullit lañ mm-hmm. waaye bu weeru koor jotee tamit dañuy wér feebar yi dara dara du leen dal. Mm-hmm. ñoom it yaakaar naa ne ci seen bi. kon mm-hmm. lañ leen ci laaj xam xamal leen lan mooy weeru koor. dëgg la ci sax waaye. pour mm-hmm. sama mbokki jeunes yi nga xam ci li am wér gi yaram. wax dëgg yàlla ñàkk a jàng tamit ak ñàkk xam. moo xool nga Mansour. Eh, xool nga weeru koor. julli weeru koor. képp ku amul benn feebar. bu dee julli moom dafay fekk nga am feebaru xel. feebaru xel ku ko am moom julli wàcc na la xool nga maam xaadimu rasul dafa bokk ci li mu gën a wax ci ñàkk a julli lam ci wax maanaam ñàkk julli mooy koo xam ne wér na feebarul waaye dafa wax ne julli wàcc na ko kooku dañ koy tuubloo ñetti fan bu tuubee dellusi ñu bàyyi ko bu fekkee ne tuubul nag dañ koy rey jaasi lislaam moo ko war a rey mu ne buñ ko reyee su boobaa danañ ko maam nangu na ne julli am na waaye daf ko dul def kooku dañuy wax ne su boobaa danañ ko sàng danañ ko sàng danañ ko jullee dañ ko defal ñu koy defal jullit mais ki nga xam nag dafa ne moom feebarul dara jotu ko waaye moom dafa ne julli wàcc na ko kooku la maam borom Tuuba wax ni képp ku ko def dañ lay tuubloo boo bañee bu fekkee ne bañ nga ñu rey la buñ la reyee xoolal duñ la jullee duñ la sàng duñ la sàng duñ la jullee duñ la suul ci armeelu jullit yi nee na bu ñu lay dugal ci bayit bàmmee sax duñu la tëddal nga nekke côté droite dañ lay dëpp te boo fi bayoon alal moom maam xaadimu rasul moo ko wax ci tasawudu sixaar nee na boo fi bayoon alal alal boobu nga bàyyi nee na kenn du ko miiras dañ ko yóbbul baytul maal naka noonu nag ki nga xam ne dafa dafa ne weeru koor dafa ñëw mu pare mu bañ ne du woor te amul ngant kooku it moom atte boobu la rek l'islam dafa wax ne su boobaa dañ lay wax na tuub bu tuubul ñetti fan lañ ko may bu bu doon ne ci lislaam dañ koy rey kon képp ku amul feebar bu la teree woor fa man shahida minkum shahra falyasumhu loolu daal lañ ci mën a tontu Hadj Mansour. ci laaj boobu entre parenthèse la woon xam naa ah, laaj nga laaj bu am solo nag. laaj yi sa laaj yi yëpp am na solo waaye bii eh, ci gën a am solo la bokk. bu ñu ko doon wax daal maanaam. xam nga sart mooy condition yi yi nga xam ni mooy tax nit ki woor bi ci jiitu mooy il faut mu nekk ab jullit al islaam parce que nag eh, wala yajibu wala yasihu ala man lam yakun musliman maanaam képp ku dul jullit soo boo boo jullee du wér boo wooree du wér fokk nga nekk ab jullit kon bi bi ci jiitu mooy mu nekk ab islaam maanaam nga nekk ci islaam lu tax Euh, ñaareel bi mooy al bulux al bulux mooy nga majeur majeur mooy xale euh, am na nuñ koy xamee benn nga gént wala nga dem ba mu yàgg sa sax kawaru pokotaan wala nga sax euh, kawaru naq wala nga am lu mu gàtt-gàtt fukki at ak juróom-ñett su boobaa nga ne mukallaf nga ànd ak sa xel moo tax Seydunaa Muhammad mu waxu ne rufi al qalamu an thalathatin maanaam ñii xalimba bi binn bàkkaar du leen bind bàkkaar bi ci jiitu mooy asabiyu xata yabluga maanaam xale ba ba muy majeur ñaareel bi mooy wa ani naayim xata yastayqida kii nelaw xalima bi binn bàkkaar du ko bindal bàkkaar feek ba mu yeewu beneen ji des wa ma wa anil majnun koo xam ne dafa dof xata yaqila ba mooy am xel ñetti ñi kenn du leen bindal bàkkaar xale fekk amul at yi ñuy tuddee majeur kenn du ko bindal bàkkaar ki nga xam ne dafay nelaw kenn du ko bindal bàkkaar ki nga xam ne dafa feebaru xel la yor kooku kenn du ko bindal bàkkaar ñetti ñi xoolal il faut mu nga am ñetti yii bu nekkee ci nit kenn du leen bindal bàkkaar kon boobu mooy ñaareel bi ci yi nga xam ne mooy tax euh, charte bi tax nga mën a woor bokk ci bokk na ci euh, bu fekkee ne danga am majeur maanaam am nga fukki at ak juróom-ñett wala nga gis signes yi nga xam ne moo tax ñu wax ne diw dafa majeur mhm. ma ne il faut nga am xel al aqlu mhm. mooy ñetteel bi te nag képp ku dof rek koor wàcc na la mhm. comme ni la julli di wàccee noonu la la koor di wàccee parce que amul xel parce que yàlla nag buy wax boroom xel yi lay waxal afala taqiloon eh, ñeenteel bi li ñu tuddee taxaaratu kooku nag jigéen a ko moom min a dam min damil xerdi wan nifaas te mooy nga am laabu oh, nga laab ci mbërëg waaye nga laab ci li ñu tuddee deretu jorgel te mooy lochi te mooy jigéen bu gisee mbaax du woor waaye bu paase da koy fay jigéen bu amee doom feek deretam jeexul du woor waaye bu paase da koy fay kon boobu mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy euh, juróomeel bi mooy al maanaam ki sart bi tax nit ki woor mooy nga nga sax fii maanaam nga bañ a tukki parce que nag kii tukki nag sharia may na la nga bañ a woor waaw bu dul tukki bu dul mooy yàlla a may na la fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar koo xam ne danga nga feebar wala nga nekk ci tukki ñu ne la may nañ la ngant ngant bi mooy tukki bi ngant bi mooy feebar bi waaye nag bu paase nag da ngay fay bés yooyu moo tax wa iddatun min ayamin uxar kon beneen bi ci des mooy asixatu wér-gi-yaram wér-gi-yaram nag foofu après dinañ ci ñëw danañu ne asixatu wal maradu surutu wujubi saw mi maanaam ñàkk am wér feebar euh, dafa bokk ci sart yi nga xam ni bu fekkee ne nit ki amu ko rek koor du ko war bala mu lay war dafay fekk nga wér beneen bi mu juróom-ñaareel bi euh, te mooy an niyatu yéene yéene nag mooy tax non seulement mooy tax koor gi wér ndax dañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi Omar ibnu Xataab moo ko nettali mooy innamal amalu bi niyaati kon Mansour bu ma la doon régimel surtout li mu taa tuddee ci wàllu wér foofu ñu taxaw fi tuuti xam nga li tax ñu di ci taxaw tuuti Mansour seetlu nañ ni am na ñoo xam ne dañuy wax ne man dama feebar feebar boo xam ni demuloo ci docteur te dañuy wax ne bala nga ñàkk a bañ a woor dafay fekk nga dem ci médecin mu consulter la boo xam ne sa feebar bi du wér ki nga xam ne nag am na feebar boo xam ne du wér kooku kenn du ko warloo waaye bu fekkee ne feebar wi yaakaar nga ne dina wér su boobaa mën nga bañ a woor weer wi waaye bu paasee nga fay su booba mën nga bañ a fay euh, mën nga bañ a woor waaye da ngay xaar boo sa war a boo wéree soo wéree nag booy fay bu la neexee nga xool saa yu mu boo xoolee mu mu sedd nga woor ci fay ko parce que l'islam euh, diinu yusrul waaw dine lu yomb la bu leen waaw beneen bi ci des mooy du forcement rek il faut nga teglante ko cest à bu la neexee booy fay mën nga woor fukki fan noppaleku wala nga woor ñeenti ñetti fan noppaleku ñetti fan balaa fexeel daal balaa koor gi ñëwaat rek nga fay lii daal mooy sart yi eh, ci koor te mooy bu ma ko doon régime waat bi ci jiitu daal Mansour mën nañu wax ne mooy il faut nga nekk ci islam ñaare bi fokk nga majeur ñetteel bi fokk nga am xel ñeenteel bi foog nga laab bu dee ne jigéen mu bañ a am regl wala mu bañ a am doom mhm. beneen bi ci des il faut que mu nekk koo xam ne dafa tukki tukkiwul mhm. maanaam al iqaama mhm. beneen bi ci des il faut mu wér beneen bi ci des booy jul booy woor il faut nga boole ko ak yéene lu tax nag ñu ne nag yéene boobu nag ñuy wax ci ndax nit ñi mën ci jëriñoo Mansour xool nga yéene mu ngi mel ni tey bu fekkee ne dañu seenu weer wi gisuñu ko tey maanaam bi ngay tëdd yow gisuloo weer wi mm-hmm. nga dem tëdd nga ne ah maa ngi tëdd nag waaye bu ma yeew ñu ne ma weeri feeñ na rek ma ma continué woon mm-hmm. doona loolu mm-hmm. moom kay fokk bala ngay tëdd nga am information ci ni weer wi feeñ na su booba bu weer wi feeñee nga tëdd ne fas naa yéene wóor suba war weer wi yëpp bu la neexee léegi nag bu fekkee ni da ngay danga tëdd boo yeewu bi ngay jullee fajar nga am information ne ci weer wi feeñ na su boobaa na nga yéene woor mais bés boobu na nga woor ndax imsaak na nga jàpp mais bés boobu passé da nga koy fay lu tax parce que yónni boo wax ne képp ko fanaanoo fanaanoolul weer woor weeru koor nee na amuloo koor kon fokk nga euh, nga fo fanaanoo ak yéene bi yéene boobu nag boo ko xesee def ci commencement weer wi mën na la yóbbu ba weer bi jeex benn yéene boobu benn yéene boobu sauf bu fekkee ne da nga am ngant ci diggante bi nga toog bu dee jigéen bu fekkee ne dafa am ngant boo gis réglam bu ñëwee pour wooraat dafay yéenewaat naka noonu yi tamit ki nga xam ne dafa doon tukki dog fekk amul benn rupture daal benn yéene bi mën na mën nga ko yóbbaale mais ci euh, mazhab imam Malik moom yéene bi moom fokk ñu ne weer wi feeñ na tey nga fas yéene def ko waaye kenn du yéene ba pare ne bu weer yu feeñee rek ma woor loolu lañ ci buggoon a leeral tuuti rek ci yi ci aju. xam naa bu ñu ko taawi bi mooy mhm. nga xamante ne bi daal waaw xam naa ni euh, comme te temps bi dafa dafa daf ñu xoj. dañu bugg a indi rek ba ñu même bu fekkee ne ñaari point rek lañ ci jël. Euh, ba beneen yoon incha allah. dañu xam ne bokk na ci li nga xam ne du yàq koor yoo xam ne bu ko nit ki defee du tax mu yàqu kooram bokk na ci yooyu mooy li ñu tuddee tusngal tusngal du yàqu koor bokk na ci bu fekkee ne tusngal bi ngay def du yéeg si ba ci sa bëli maanaam doo yéeg cafka gi foofu eh, beneen bi ci des bokk na ci yi nga xam ne ni tamit du yàqu koor mhm. mooy li ñu tuddee gajju maanaam nga am feebar ci sa yaram foo xam ne peut-être deret bu taa moo fa nekk deret ju dee noonu ñu koy ñaas ba deret ji di ci génni loolu tamit du du yàq koor euh, bu fekkee ne tamit euh, poussière boo xam ne comme yaa ngi dox ci mbedd mi poussière boobu di jóg di dugg sa gémmiñ loolu du yàq koor walla nga jékki-jékki rek am benn weñ bu dugg ci sa kii yooyu du yàqu koor ndax yooyu mooy yi nga xam ne mënoo koo éviter bokk na ci yi nga xam ne du yàqu koor mooy ki nga xam ne dafay liggéey ci ci wàllu boulangerie wala mu nekk ci usine bu moo xam ne ciment la comme ñi nga xam ne ñooy tabax ñooñu poussière bi dugg seen seen kii du tax mu yàq seen koor kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne du yàqu koor mais am na yoo xam ne nag du yàqu góor waaye dañ ko sib maanaam mu am lu nekk sa gémmiñ mu mel ni danga nga ne nii rek affaire bi génni xam nga mënoon nga ko yàbbi nga faf wann ko wann googu nga koy won wanni maanaam lu desañ sa bëñ du yàq sa koor waaye sib nañ ko nag boo ko mënee yàbbi nga yàbbi ko moo gën bokk na ci li nga xam ne du yàq koor mooy bu fekkee ne da nga doon soccu soccu dafa bokk sax ci lu ñu sopp bu ko def nag pour xetu gémmiñ gi pour ne damay bañ sama gémmiñ gi am xet parce que dañu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni euh, ki woor xet bi génn ci gémmiñam parfum lay doon yobal xiyaamat yi waaye ñun nag euh, waaye li ñu gën a sopp nag booy socc moom suur bu mu bañ a nekk socc bu tooy ndax socc bu tooy mën na am euh, ndox meek yooyu bu fekkee temps bi may nañu ko it li ñu tuddee saxaar am na saxaar yoo xam ne moom dafa yàq koor lu mel ni cigarette mel ni cigarette ak lépp loo xam ne yow nit ki moo def en moo def euh, volonté boppam ba saxaar soosu di ko dugg yooyu moom bu yegsee sa baat rek dafay yàqu koor euh, beneen bi ci des mooy euh, li ñu tuddee nga fon lu mel ni misk moo xam parfum la moo xam fleur la loo xam ne daal am na xet gu neex yooyu nga xam ne da nga koy jël di ko kii mu di la xeeñ donte bu duggee sa bakkan yàqul koor gi waaye dañu wax ne sib nañ ko nag nga bañ ko def moo tax bu weeru koor bi ñëwee nga wàññi yooyu moo gën di ko di ko di ko di ko jëfandikoo daal beneen bi ci des ci euh, yi nga xam ne du yàqu koor ba tey mooy lépp maanaam pikiir xam nga am na ñoo xam ne jaakaar nañ ne bu ñu wooree rek waruñu pikiiru mais piqûre bi dañuy wax ne bu fekkee ne pikiir bi bu ñu la ko defee du nekk lu maanaam du nekk loo xam ne day mel ni da lay servir wàllu lekk maanaam doo yëg ne yëg si na ci sa bëli wala yëg si na sa biir su boobaa mën nga ko pikiru may nañ la ko mais bu fekkee ne nag boo ko pikiroo rek mu sentir ko ne eh, am na day lay alimenter su boobaa dañ wax ne nga bañ ko def dañ koy dañ koy tere beneen bi ci des it mooy loo xam ne yàqu koor loolu mën na dal ku ne mooy nit ku tëdd ànd ak soxnaam fàtte sangu bi mu fàttee sangu mu dem ba ci fajar muy biddanti bi mu biddantee nag yëg ne sanguwul loolu du tee mu woor c'est-à-dire dem rek sangu ñëw julli mais kooram dana baax waaw doon na valable parce que nit ñi nag yu bari dañ ah, Sénégal ñu ñi mel ni man dañuy jàpp ne il faut que nga sangu pour mën a woor te fekk na sang bi du obligation ci ci kii bi mais bu fekkee moo tax li ñu gën a bëgg nag mooy bu loolu loolu dalee boo yeew li nga njëkk a def mooy gaawal nga dem sangu ji mën a julli waxtu yi kon mën na jàpp ne de li ñu tuddee eh, te ndax Seydina Muhammad te yonent bi sallallahu alayhi wa yi fanaan janaaba yeewu bi mu yeewoo terewul dafa woor kon li muy tekki mooy nit ki mën nga fanaanoog ba moo xam da nga ànd ak sa soxna moo xam danga gént su boobaa bu yeewoo it mën nga jàpp mën nga kii beneen bi ci des mooy yàqul koor mooy dem ci géej mm-hmm. donte nag eh, sangu ji wala nga dem def natation bu fekkee da nga def sport mm-hmm. condition bi mooy fexeel boo bu dara jaar ci sa gémmiñ wala mu jaar ci sa nopp ba yëg si sa sa bëli gi mm-hmm. su loolu amul rek aayul boo fekkee na nag boo ko defee affaire bi yëg si sa ki la eh, nga bañ ko def moo gën daal Mansour. Ah, ba beneen yoon di ñaan yàlla lépp lu si jub rek ci suñu borom la tukkee borom subhanahu wa taala di gërëm imam bu baax ci tontu bu leer bi nga xamante ni macha allah euh, am nañ ko fi di ñaan yàlla yàlla mu nekk suñu mujjantalu daje. am incha allah di wax imam rek di ko ñaan mu tëj. incha allah bu beneen yoon rek. incha allah suñu caméraman bi yàlla yàlla dëgëral taxawaay. am incha allah seen bi ñu koy defee muy seen Clinique TV. yàlla yàlla yëkkati seen clic yéen ñi abonné gul gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.